xabaar yi lañu leen di baaxee tey si àllarba gi yem ak fukki fan ak benn ci weex bi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën fës ndogal la yoon jël ci mbir soxna ga coow ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga daañu leen ko xamal Ousmane Sonko am na dëgg ca coowal 94 ya muy dut baaxam Mamour Diallo ay rapport OFNAC ñoo ko firnde la di xalaatu Aïssatou Diop Fall ci lëkkaloo kuréelu Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal danañu leen ko faram pass lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen i safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi lu bees juddu na ci mbirum Lissa Tine may soxna soosee dëkk ca Refane ca Bambey ñu kidnappé woon ko fukki fan ñeent ci weeru avril atum ba ndëgëni si section de recherche bu Colobane teg na loxo démb ci talaata gi Modou Yar dama ne woon borom këram ba placé ko en garde à vue ñeel l'enquête bi Lissa tolloon ci ñaar na la ñu dut baaxam ni moo ko sàcc yaayam 2020 ni Modou Yade euh, moo woolu woon Lisa Ndakaaru ngir mu jël si seen dund doom ji l'enquêteur a nag gisoon nañu ni waa ji moo ko mujjeewoo ci téléphone am euh, ñu localiser appareil ba ca këram ca Sicap Mbao laata rek muy fay Lisa da daan ñëw vacances Colobane ci baayam foofee la xamanteek Modou Yade mu takk ko waaye daal euh, juróom benni weer ci kanam sëy ba jurub coow ñu daal di koy tas mu jógee a Yacine Ngom di wéyal naan rek Modou moo bëggoon takkaat doomam ba ñoom ñu daal rek réquisitoire procureur ba ci seen client ak itam inculpation mag la ko juge bu ñaareeli cabinet bi placé sous mandat de dépôt chambre d'accusation ba nag da ko bañal Cheikh Omar Diagne ña nga di ko toppee diffamation injure menace sans ordre de condition ak insulte jaare ci ab système informatique gannaaw plainte Jibril Waar gi la ko teg loxo Les Échos di xam ne ni avocat ya dañu gis ne rek la jàpp Cheikh Omar Diagne tegewul fenn ak corruption ñu tudd député waa APR gile di Seydina Fall Bougazelli ak juróom ci ay complice am ñu yóbbu woon kaso la leen toppee yemook association de malfaiteurs faux monnayage ak corruption ñoom ñëpp nag amoon nañu liberté provisoire ba mu des burkinabé bii di Moussa Ouédraogo Gogo ni ki démb sax la dugal geneen requête ngir am liberté provisoire l'observateur di xam ne nii fausse coupure yooyu dañu ko war a saytu ndax lu ndem si yàlla doyen des juges Samba Sall atum yu njëkk chroniqueur jàkkaarloo bi ca TFM nag dafa war a dool yeneen 2000 ci ñaari fan dong ngir valider dossier wu candidature euh, ci élection législative ya ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet Pape Djibril Fall nag moo joxe xibaar wi ci page Facebook am euh, ca nag di woo sénégalais yi ànd moom te parrainé guñu ngi rek ñu mën koo def mën a jege état bu yi ancien ministre Oumar Khassimou Dia ne woon it député moo génnaat dina doon jullee ay boori 15 heures ca Zawiya Seydou Nourou Tall ba ñu sa noppi rek denc ko Yoff Dakar Buzz ngi bokk nag kar waa këram di ko ñaanal borom bi xaaree ko aljana Ahmed Khalifa Niass daal dinay àddu ci coowal Dubaay gi na mu jàngatee lu ni mel nag moo di scandale google ngi yemook rek sénégalais yi nga xam ni bëgguñu lu dul am lépp ci saa si te duñu sonn te la xew Dubaay dong lay mujj jur Ahmed Khalifa nag crise générale la ko dippee ndax na bu dara newul ci poche yi ñi feebar mënuñoo faju xi fakk ñàkkum liggéey gi wër ñu njàng positif lay biral ku ne ngi xalaata defal yaayam lu baax ak ay waajuram ak ki rakkam ba tey moom Ahmed Khalifa Niass di dut baaxam njiitu réew mi di wax ni rek la xew Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi mujj moo ko waral Ahmed nee ay at a muy wax ni président bi gën la am waaye nag ñi ko wër ñoo baaxul njiital front des alliances patriotiques yi di ci dolli naan bu amuloon ay qualité yi boppam moom njiitu réew mi du ñu am sax benn voix ci locale yi inspecteur domaine gi di Mamour Diallo njiital kuréelu Pastef gi dafa jébbaloon ñaari plainte ca taabalu procureur de la république ak doyen des juges ñeel ay transactions immobilières yu jaarul yoon ak détournement de deniers publics OFNAC nag ci ay rapportu ak 2021 daal dina jox dëgg Ousmane Sonko su wax ji ni ko libération di xamle la judd ci l'enquête ba di biralub association de malfaiteurs bu nu sukkandikoo ci OFNAC TF 1451 R bu 250 ñu inscriroon waaye ak ay acte notarié ca société immobilière Saem Indépendance atum 1978 euh, si cadre échange gu ko état di jox terrain wu benn hectare ca Mermoz yu ñu dindi rek ci TF DG euh, contre yu ñu immatriculé TF R inscrire ko ci turu nguurug Sénégal atum SNHLM e moom 125 ya ngir samp projet wu Parcelles Assainies Gàkk Kër Massar Rufisque niki noonu SNHLM e di dëggal ni rek dédommagé na Saem Indépendance kopparu cinq millions euh, jaare ci ab bu DG wu société ga wax ni jotu ko benn yoon euh, ña war a doon dem ci yàlla Ousmane Mbeng nag saisiroon justice ngir ñu dakkal njaay ma waaye daal dañu gis ba tey ne joxuñu leen seen ay droit euh, gëstu ya sa of nag amal di firnde lu bari ca la ñoo di ñaxtu ba tax na rek ñu biral ci bile dossier mbirum association de malfaiteurs escroquerie ak complicité d'escroquerie Cheikh Diouf ma doon sàcc juru jàmbur ya ca diwaanu Touba takk der yi doon amal bayam ci moom moomule euh, ñu yàgg wër diiru at xamle nañu ni nag Cheikh Diouf da doon nëbbatu ba ñu koy jàpp gannaaw ba ñu ko placé en garde à vue ca brigade de gendarmerie wu Mbàkke tey ci àllarba gii la ñu koy wane lekk tribunalu Diourbel euh, ba muy tuulee nag dana jaar chambre criminelle la di ko toppee mi ngi yemoo ko vol de bétail euh, vol commis en réunion la nuit avec effraction ak association de malfaiteurs teguñu loxo nag kenn na siècle Aysatu nag nee Yewwi bu ñu moytuwulee ci gile élection la ñuy tasaarooy ba faaw ndax ca biir Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko amu fa doole dañu ko jiital da leen ëpp buzz waaye daal kii di Khalifa Sall mooy serveur ba nee na nag Sonko la mu yàgg a wax nit ñi gëmu ci dara te mënatu fee wax a waxi anti système jàngat ga mu ca toftal moo di ne ku bëgg a def politique fii ci Sénégal faaw nga jaar ci terrain bi ndax moo di base bi Abdou Ababacar ak Ibrahima mi ñu gën a xam ci fara te fësaluñu seeni sant ña nga jamono jile loole rek a Njaay mile di ab ci yéreem ya mu yoroon euh, bu nu sukkandikoo ci laas euh, yëf yaa nga xewee Grand Yoff artiste bi nag doon wax ak ñoom ba mu yàgg rek mu dem euh, ci yoon wi mu fàttali ku tubayam ya daal di wiññeeku ngir jëli leen a mu dem fekk kenn ci ñoom sol benn tubayam ba mu ko ko laajee nag laajaale ko yéreem yépp ñu bañ ko koo jox dóor ko ba noppi rek jël ci moom juróom-ñeenti junni mu jëlee ci ay gaañu gaañu dal di dem jébbali plainte ca commissariat de police bu Grand Yoff takk teg leen loxo placé leen ba noppi defere leen parquet ba ñeel volant réunion avec violence commis nañu ko xamle woon tribunal daal dina joxe délibéré wu mbiru Masou Soxna ma ñàkkoon bakkanam ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga tribunal ba nag déclaré na coupable ñetti sage-femme ya ci juróom-benn ya ñu doon ca tudd teg ci seen dodd juróom-benn weexu kaso yu ñu dul tëdd ñeel non assistance à personne en danger yeneen ñett ya nag mujj nañu leen a bàyyi ab néew bu tàmbali woon yàqu la ñu fekk tey ci fajar gi ca ancienne gouvernance bu Kaolack ay source nag wax nañu ni waa ji ànduloon nag service d'hygiène ak sapeur pompier demoon nañu ca bërëb ba mbir ma amee daal di jëlee néew ba dañu leen topp toppalaat xibaar yi l'observateur moo dañu dikkal ci mbir mu xewee woon Keñeto Jaaxa ca Kédougou di ñu xamal ni rek fukki nit ak juróom-ñett ñoo ñëwoon ci benn diine gu fa amoon rek waaye urgence bu district sanitaire u Kédougou la ñu mujjee la ko waral di ab boolu cere gu ñu lekk ay boori 21h ñoom ñëpp nag biir buy daw la ñu ca jëlee ak ay wëcc yu dul deex ñu évacué leen takk der yu commissariat central u Kédougou bi nañu cap l'enquête ba te fësaluñu turam ab maçon la bu demoon Sali waaye nag wax nañu ni a benn gune gu am fukki at ak ñett gune gi jàllo tantam moo ko yónni woon boutique ba ba daal di koy dogaale xale bi xaañ ko xeer nag ba mu gëlëmal ko ba tante ji seetloo ni xale bi dafa yàgg mu génn di ko xooli ca sali jak saaw ñu jàpp ba daal di koy fekk ci moom rek saak bu def ay soutien gorge benn aiguille ak wëñ ba takk deri jokkoo weeg waaye juróom bu jigéen mu xamal leen doomam wérul te ñetti fan a ñoom waa kër ga ñu di ko wër la ñu di ko toppee nag mi ngi yemook tentative de viol avec ak itam détention illégale d'arme blanche l'enquête baa ngay wëy tàggat yaram la koy ndar ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi police centrale Louga dal dinay defeere parquet ba niki démb ci talaata gi benn supporteru Azak Ndiambour di ko toppee rébellion injure publique ak outrage à agent de police dans l'exercice de ses fonctions yemook la xewoon rek ca jongante Ndiambour bak Jaraaf ñeeloon vingt et unième journée wu championnat bu football la ko teg loxo ca police Louga ci la mu xotti chemise u benn takk der ci googu doxoon euh, ci diggante supporteru ñaari équipe yi ay sànni xeer lu ne amoon na ca entraîneuru jaraaf gii di Cheikh Gueye ñu laaloon ko ca sax euh, ba ñu évacué woon ko l'hôpital gaynde yi dañu leen mujj dóor gannaaw ay yoon yu ñu égaliser ko Allemagne ña ngi leen mënee ci prolongation ya ñeenti bal si ñett ci njeexantalu temps réglementaire gi nag ku ne dangaa dugaloon na ñaari bal euh, Sénégal mi ngi door a am défaite ci juróomi match ya mu doxal ci jongante googu lexe gannaaw Cameroun Égypte ak Mali équipe championne d'Afrique bi dong teewaloon na continent bi ci boobule ñaareeli tour ancien joueur Liverpool jile di Jamie xam na décision nga Sadio Mané naka jël nag ci avenir am ci njeexantalu saison bi Sadio nag ay club yu bari teg nañu ko bët FC Barcelone dana def kéem kattanam ngir man koo jël waaye nag dafa mel ne champion d'Afrique gi du jóge fa mu nekk day desandi Liverpool na ko Jamie di xamle nee na nag buy seetaan Liverpool en tant que fan Sadio Mané moo di préféré da ko bëgg te xam na ni rek du dem feneen ndax moom du ko bàyyi muy dem Bayern moom Sadio nag dal dinay biral ay kàddu ci wile nekk mbégte dong la ci moom ay trophée lay gën a day jéem a jàppale naataangoom yi te ñoom itam dañu ko yombalal yëf yi donte nag Bayern fësal na intérêt ci international sénégalais bi mbokk yi li la leen andi loon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës jaa ngeen jëf